asalaamaaleykum mbokk internet Senactu 7 ñu ngi nuyu di ziar amoon tey benn expert en football monsieur monsieur Fall euh, koy dalal di ko jox kàddu bi mu nuyoo. waaw maa ngi leen di nuyu yenn euh, auditeur yu ak euh, waa surtout Senactu donc di leen jaajëfal ci invitation bi. ok di leen jaajëfal monsieur Fall. def nañ tirage au sort coupe du monde Qatar deux mille vingt deux ne Sénégal dafa bokk ak poule Namibie Congo ak Togo yow no noo gisee noo gisee poule tirage au sort bi. waaw tirage au bi mën nañu wax ne euh, tirage la boo xam ne vraiment mu euh, mënuñu woon am lu ko gën a neex ci niñ ko mën a waxee ah. parce que euh, tirage la boo xam ne. tey képp kuy euh, grosse écurie du football africain nekkuloo ci wala buñ ko nekkoon aussi tamit ce fut dans le temps donc boo xoolee Togo xool Congo xool Namibie vraiment c'est pas des foudres de guerre hein, parce que c'est des équipes qui sont à notre portée comme on dit dans le jargon du foot mais le football aussi tamit ci terrain la ci terrain lañ koy pratiquer ci terrain moom mooy am vérité ci ne lépp di génnee maintenant sur le papier bu ñu xoolee bu baax équipe nationale du Sénégal donc ñoo wara mëna mën génn donc euh, lolu lolu lu am la parce que même Claude Leroy mi nga xamné mom moom yoré euh, équipe bu Togo bi tay wala Congo plutôt sax mi ngi koy wax donc nan Sénégal mom moy favori ci groupe bobu donc li wóor ba wóor mooy euh, tay ku nekk xam nga né Sénégal ñu leen di xaar té ci walu bobu aussi tamit lu jaadu la.

année boobu le Sénégal jitu woon na mais mu recevoir Togo finalement ci dernier euh, tour bi Togo muju muju muju éliminé éliminé Sénégal. wa lolu xam mhm. lu am la parce que récemment le lolu yàggul donc je pense que c'était en 2006 période Bobo génération équipe bu Togo boobu ñoom Emmanuel Adebayor même ñoo ci donc ils avaient de très bons joueurs et Emmanuel Adebayor ci jamono jooju mi ngi nekk au summum de sa forme. Mhm parce que euh, Sénégal ci jamono joju bo xolé aussi tamit génération bobu ñu ngi doon pare ñu ngi doon jeexal suñu jeexalul woon sax parce que parce que bo xolé match bi ñu joué fi équipe bi ça n'avançait pas on a vu comment match matchs naka lañ ko jouer ak naka lañ ko terminer mhm. vraiment c'était lamentable mhm. parce que y avait d'autres mots à dire que ça c'était mhm. vraiment laborieux dans le jeu comme dans le contenu le lu ñu doon def vraiment c'était limite parce que première mi-temps bi nga xamné mom équipe Bobu ci match Bobu. Mhm. gis on a fait rater des occasions deuxième mi-temps bi on a vu que nous avons à sax avancé. Mhm. on était wa léegi dafa melni ni. Mhm. Euh, boo ci un peu de rétrospective par rapport à l'histoire du football Sénégal dafa mel ni de la Caire 86. génération bobu mom mo ñëw doon jouer Sénégal 92. donc la génération Caire 86 bi ñuy ñëw di jouer Sénégal 92 dafa compte presque ñoom ñëpp ñu en fin de carrière mm-hmm. donc bon, nous ñun aussi tamit ñu defoon 2002 bi ñuy jouer ci 2006 ci éliminatoire yooyu dafa que presque ñoom ñëpp ñu pare woon mm-hmm. su su ñenn ñi ñu nous woon ci poste de sortie donc tey li am nag mooy que génération bi dafa toll ñu au sommet de leur forme parce que tey mënoo ne ñoom Idriss Ismaïla Sarr ñu ngi waaj mm-hmm. xam donc munoo wax ne Sadio Mané mi ngi waaj a pare munoo wax ne euh, Kalidou Koulibaly mi ngi waaj a pare donc c' est des garçons qui sont au summum de leur forme fi mu nekk nii ci jamono ñu toll nii donc et tant d' dans cette équipe là ay ñoom Keita Diao Balde donc boo xoolee ñoom Crépin Diatta c' est des garçons qui viennent aujourd'hui pour confirmer yaakaar bi ñu am ci ñoom pour certains donc il y a un coup de rajeunissement dans cette équipe là boo xam ne tey ñooñu nous ñoo war a waat porté waat équipe bi nga xamné ne war prétendre dem coupe du monde jouer confort, fofu ba paré défat benen cas. Mhm. donc heureusement qu'il y a un renouvellement qui s'est créé maintenant nous football comme ni wax rek ci terrain la même bu nous dañ ñu dans le passé lolu d'autre d'actualité parce que ñom bo xolé sen dernière prestation yu ñu am ci l'équipe bi du équipe avons moo ñu war mëna poser problème donc ce nag ñun ñooy jël match yi comme ni mako waxé kéro ci ben émission mm-hmm. ñu nekk dans la phase de conservation ñun ñoo war di attaquer équipe yooyu mm-hmm. Mm-hmm. imposer leen suñu rythme pour mën leen gagner parce que buñ leen di dé xaar ñom dinañu japp confiance té but kenn xamul fu muy jógee et puis bu boobaa match bi day compliqué donc ñun lu ñu mën def mooy que ci match yoy il faut ñu imposer suñu rythme xam nga pour que hiérarchie nous ñu parce que football aussi amener une hiérarchie même si toutes les équipes se valent c'est 11 contre 11, mais amna lo xamné nak sur le plan technique tactique amna ci lo xamné ne ñoo leen ci parce que suñu ay joueurs expérience ñu am niveau bi jouer, nous mënuñu ko comparer ak yenn joueurs Togo yi wala joueurs Congo wala joueurs Namibie sous estimer wu ñu leen kenn leen mais c'est ça la réalité aussi